Euh, muy jotaay boo xamante ni saa su ne jàmm ji info dina leen ko amal fii ci euh, plateau studio Amadou Ba studio numéro 2 euh, mbokk yi tey nag mu mel ni tey mardi 30 novembre 2021 tey bu ñu ko waxee ne 30 novembre 1865 mu mel ni tam am na xew-xew boo xamante ni ci ay jaar-jaar rawatina ñi nga xamante ni sunu mag ñi nga xamante ni woon nañ fi itam def fi ay jaloore yu am am solo waaye mbokk yi tey du ma ci wéet tey tey maa ngi fi professeur ki nga xamante ni moo di Malick Ba yëpp dañ ci sori su ko defee rek daañu mën a dugg ci li nga xamante rek daañu ciy mën a euh, waxtaan bu baax a baax a baax euh, muy li nga xamante ni rek Nioro euh, Paoskoto incha allah muy histoire boo xam ne bu ama solo boobu ñu fas yéene ko waxtaane tey muy sët ci ki nga xamante ne rek Mbaba Diakhou Ba suñu maam googee ñuy ñaan mboolem ñi nga xamante rek ñu ngi fi itam ci njaboot gi fi des yàlla sàmm leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam professeur nuyu nañ la beneen yoon di la wax salaamualeykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Amadou kon ginnaaw bu ñu waxee auzu billahi samil alim min sheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ñu ngi wax rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli kon ñu ngi lay delloo nuyoo di am mbégte euh, ñëw togo yéen ci bés bu spécial bi incha allah rabi mm-hmm. am lu ñu jukki rek ci li nga xam ne euh, aju na ci li waral euh, invitation bi incha allah jërëjëf professeur Malick Ba tabarkàlla yaakaar naa ni ñoo ngi lay santaat sa disponibilité ndax ni ñu ko waxee tam euh, jot bi taxu koo bari lool waaye tam ni ma ko waxee lépp li nga xamante ni euh, dafa yitteel li nga xamante ni Sénégal yitteel lislaam tam da ciy dox ay wàllu wàllu yu am am solo euh, tey professeur mu mel li ñuy njëkkee rek muy le Sénégal se souvient la bataille de Pathé Badiane mu mel nii muy mardi tey 30 novembre 2021 ñu koy fàttaliku li nga xamante ni tey professeur ñu baree bari xëy na amaana am na ñu ko bàyyi xel waaye mu am na ñoo xamante moment bi tey ñu ngi koy soog a dégg. ok kon euh, sëñ bi ñu ngi leen di fay incha allah di am mbégte lool euh, tamit di wane suñu lottu ci waxtaan ci thème bi waaye dañuy jéem suñu kéem kàttan incha allah li nga xam ne suñ gëstu may nañu ko ci. kon mel ni tey le 30 novembre 1865. 2021. Euh, nekk commémoration 156e. anniversaire li ñu tuddee eh, xare Paate Badiane liñ ci mën a jàppee moo di bés bu historique la bés boo xam ne yaakaar naa ne senegal yépp ñoo ko moom su musulman yooyu nekkoon ci ripp njabootee la woon ñépp uuf am ci victoire bu rëy même si si si archive tubaab bi jéem nañu ko falsifié mm-hmm. di wax ne ñoom ñoo am ndam li waaye tubaab bi ñu ko doon wax tubaab bi ñu ngi koy wax ci seen archive mm-hmm. am na benn document boo xam ne Alexandre euh, Sabatier moo ko bind mu ngi ciy wax lu mel noonu di wax ne euh, ñoom ñoo am victoire ndam keroog ci kaw jullit yi waaye muy lu yéeme ma mm-hmm. ku xam ne tubaab mm-hmm. bu la duma daan la dina occuper sa bërëb nangu ko yilif la dugg ci détails yi euh, xare bi dëgg. Mhm. nga gis victime yi di nga xam ñan ñoo gën a subir. d'accord professeur foofu nga baal ma tuuti ndax dogguma la. Mhm. Euh, mu nekk bataille euh, de Pathé Badiane nga xam ne la euh, li nga xamante ni l'islam amoon na ko. kan moo ko dirigé woon. voilà euh, bataille de Pathé Badiane dafa am jàmbaaru yàlla ji ñu tuddee almaami tafsir Maba Diakhou Ba. li nga xamante ni lépp lu islam meññ ci senegal dañ ko nanguloon fekk ci ko ci wooteem doon woote pour taxawal kalimatu shahadatu laa ilaha illallah sallallahu alayhi wa yàlla def ne euh, combat boobu mu ngi ko tàmbali même 1861 avant 1865 1861 la Maba Diakhou Ba almaam Maba Diakhou Ba radiyallahu taala anhu daal di nangu li ñu tuddee badi bu rip muy fi ñuy wax ñooro tey jii waaw mm-hmm. nangu ko 1861 installé fa li ñu tuddee le deuxième état théocratique théocratique ci Sénégal mooy foo xam ne charia moo fi atte attewoo mu nekk deuxième bi nga xam ne am na ginnaaw 1776 révolution Thierno Souleymane Baal mm-hmm. ci Fouta Tooro donc bu Tafsir Maba Diakhou Ba moo ci topp en 1861 ngay soog a jël 1880 et quelque bu Mamadou Lamine Dramé bu bundu muy troisième. Mm-hmm. ba yàlla def ci moom njàmbaar. yàlla def ci moom tamit euh, waajal ko ci fit ci xam-xam ak ci egg ci foo xam ne si suñ borom bi jiital ko ci kaw ay kanamu d'abord njabootam parce que bi mu tàmbali xeex bi loolu dafa lu lu lu jara lu jara wax la njabootam ñoo ko ci fekk ci. Mm-hmm. Euh, mu ngi ganee àdduna tawa jàngee fa motalee njàngam fële ca Longhor ci Mbakol ñibbisiwaat yore daara di fa jàng lu ma 32 ans maanaam di préparer ay nit. ci éducation islamique jàngal leen ci euh, mawaad shari mawaad di di diini yëpp maanaam xam-xam diine yëpp daal di am mébét loolu nag taal jihaad suñ borom jox ko ci ndigal jaarale ko si Cheikh Omar Fouti Taal bi muy def sa tournée la bu ko Makka ñu ñu gisee à Kabakode en 1846 tëju moom ak rakkam ak ma tafsir Maamu Ndari ba fële ca Kabakoto tëju am yu defante lu mat semaine génn. donc mu toog 1846 ba 1861. presque fukki at ak juróom-benn. lépp di liggéey ba am ndigal ci taal jihaad yi. daal di ko taal 1861. nangu ripp mokkal ko rumb def ko état islamique. mooy Nioro. mooy Nioro fi ñuy wax traité ripp Badibou. nanguwaale le Saloum le royaume du Saloum. bi nga xamante ni kawoon moo nekkoon capitale ba. Mhm. lépp islamisé ko yemut foofu. jéggi dem kajoor ak jolof attaqué leen tasaare fi islam tubaab bi ne kii kat bu ñu ko fere newul dina ñëw fekk ñu Saint-Louis temps yooyu capital ba Saint-Louis fa la gouverneur bi daan nekk si. tafsir ma ba jaxu ba si stratégie bi dama doon déglu leen sant rek di laaw taala amin mhm. mooy def naa bindanteeg sax buuru Maroc ne ko jógeel Maroc wàcc si Saint-Louis. man ma jiyee ko ñooro ñu tasee def république islamique. tubaab bi daam gis nañ ci ay euh, correspondance am ne fédération islamique la bëggoon créé moom biir Saalum biir biir Sénégal. donc ñu fere ne ko li waral nag sax Pathé Badiane loolu bokk loolu mooy principalement cause bi. Mhm. maanaam arrêté expansion islam ci Sénégal. mooy bataille bi mooy bataille bi li ko war mu tontu leen ne leen faalewuma leen man yëkkati ba ba seedeb su euh, kalimatullaay moom moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy suma kii te fépp foo xam ne jullit mu nga fa ñu ñu di ko not kenn jàppalewu ko dinaa fa dem jàppale la bañ am doole. tubaab bi dégg lool jóge ko Saint-Louis def une colonne ñu ngi jóge ko Saint-Louis presque le 28 octobre 1865 jóge ko Saint-Louis ànd ak contingent waalo waale yi te li gën a yeme ci ci xeex bi loolu la booy xool tubaab yi ñoom seen bopp bu matoon mille personnes bari na hmm. te au total seen seen seen seen colonne bi def na mille personnes. donc ñi ko complété yëpp ay locaux la ñu woon mooy royaume yi nga xamante ni maanaam nguur yi nga xam ne ñi ngi nekkoon Sénégal doon collaborer ak ñoom àndoon ak ñoom. neexul wax nag waaye histoire dañ koy assumer parce que ay amoon na bëri woon na ay collaborateurs yoo xamante ni fi lañ nekkoon ci réew mi. amoon na contingent yoo xamante ni fépp fu ñu jaaroon waalo amoon na contingent yi ñëwoon ñëw jàpp ci ñu doon joxe ay gëlëm ay dromadaire ñu di joxe ay cavalier bañ toll ci presque 8000 hommes ñu jógee ko def marche colonne Saint-Louis. maanaam te et même ci booy lire ci archives yi ñi ko Sabatier décrire ñoom dañ ko def exprès di def marche di jaar ci ci ci royaume yi pour maanaam nit ñi fen leen def ko benn for euh, beneen façon bu ñu recruter ay contingents locaux. Saint-Louis jaar Ganjool Jolof mhm. Kajoor Jender mhm. ba ñàkkur fii Dakar mhm. ñëw campé Cap Vert maanaam Dakar jóge ko fi jaaraat jëlaat itinéraire Thiès. Jurbel bi wàccaat euh, euh, Jaxaw di dem ba Kaolack campemaat foofu noonu si seen amoon nañ camp de supervision bu nekkoon Kaolack mhm. demaat Gàppaax après à quelques kilomètres de Gàppaax mooy xuur ba nag fi ñuy wax Paate Badiane mhm. foofu la euh, stratégie de guerre bu ma Tafsir Maba Jaxu Ba fayee mhm. dañ nettali si taarix ne bés boobu booy xool lépp lu Sénégal ngënkoon ci diine jàpp nañ ci ci xeex ak seen doole wala jàpp nañ ci ci xeex ak seen kurus ak i ñaan. dafay dox ci baatin parce que yenn mag sax dañ koy méngale ak mhm. euh, xare badar parce que nañ bés boobu bu tubaab bi amoon ndam ci kaw jullit yi. xaj ne islaamu Sénégal tey du toll ni mu toll nii. ndaxte lépp lu Sénégal compté woon ci ay borom euh, ginnaaw. Mhm. ci njabootu islaam ñu ngi fa woon. Mhm. mën naa ci lim ñenn ñi nga xam ne ñoom lañ gën a ràññee. mun naa ci lim ki nga xam ne mooy euh, maam Abdou Khoudia Camara si mi nga xam ne moo jur sax sax sax soxna Safiyet Safiyatu Ñang mi jur ma Odès Dabaax mun naa ci lim sëriñ mu Mouhamadou Bousso ñu koy Serigne Bousso bi nekkoon nijaay si Cheikh Ahmadou Bamba. mun naa ci lim Ibrahima Kellel Thiam mi nekkoon nijaay ci El Hadj Abdoulaye mi nga xam ne sax moom la tuddee El Hadj Ibrahima Niass di Baye Niass mm. mooy tafsir Ibrahima Kellel Thiam. da nga mën naa ci lim tamit ay kàngamu islam yi nga xamante ni ñu nekkoon biir Saalum dëkkoon fu di ay jullit balaa tafsir ma ba si ma ba doon fa ñëw lu lu lu mel ni famille Cissé yi mm-hmm. ànd ceeg le le le le le le un des généraux Birane Cissé mm-hmm. borom kër ndëri mooy Medina Sabax mm-hmm. moom sax la ñuy wax ne bii bataay bi di tàmbali le gén le général Pinel le gouverneur Pinet-Laprade mi nga xamante ni au temps c'était un lieutenant colonel. doon jiitee bataay bi. moom la njëkk tiire ci épole gauche. xam nga bataille buy tàmbali ñu tiire ki nga xam ne mooy le général. gañe nga ko déjà. Mm-hmm. ci lañ blessé Pinet-la Prade balaa bataille bi di tàmbali. li ko waral nag mooy stratégie bi ñu tabax bi ñu teg. Mm-hmm. donc euh, version yi bari nañ ci. ku mel ni suñ maam Lat Joor lu joué ci rôle bu baax a baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. waaye ñi mel ni aussi euh, suñu maam Abdoulaye Oly Mata Xuma nekkoon petit frère Tafsir Maba. ak ses guerriers yi nga xamante ni Birane Cissé ñu ngi ci woon. ku mel ni euh, Ali Xoja ku mel ni Amad Xoja nekkoon ay jëbaat tafsir Maba Jaxu Ba ah ku mel ni euh, maanaam bari woon nañ lool Alburi Njaay fekkee na ko parce que bi Lat Joor di exilé wu ñu am 1864 ñoom ñoo àndoon fekk àndu ceeg mu ak ñoom Demba War Sàll ki bu tefa béyeeg et cetera mhm. bu naa ma jot et cetera donc mu ne mu nekkoon ay kàngam yu bëri yoo xamante ni mhm. jën jëm ñoom ñëpp geer bi daf ko seen guerre bopp teg benn stratégie mooy xool dañ naan euh, Pathé Badiane ab xuur la ki fet dañ ne Tafsir ba tubaab bi buñ ko bàyyi mu yegg si biir ñooro fekk ñu fi mhm. moo ñu ëpp puissance de feu parce que jamono yooyu ñu ngi ci pleine révolution industrielle en Europe le canon ay été créé mhm. Mhm. tubaab bi dañu doon guerre ak canon ñu ne ko bu ñu leen bàyyee ñu tiré seen benn canon rek mën na rey yaa xam cent personnes deux cent personnes cent cinquante personnes donc il faut que ñu defal leen un guet-apens maanaam piège dañoo dem jël garab yi dagg leen kaala leen mu mel ni ay nit ba pare solo tegal leen ay fetal yoo xamante ni yu yu yu yu ay ay ay ay bant la ñuy jël ñu jàpp ñu jox ko ay fetal. tubaab bi gis nañu rek commencé di décharger. bi ñu décharger rek fekk gars yi def nañ trois équipes. Mhm. benn à gauche benn à droite. Mhm. benn bi di xaar bi ñu duggee rek gauche ak droite songu leen. Hmm. commencé leen fekk leen ci biir euh, cuvette bi. cuvette bi dëgg la. donc mënatuñ génne donc maîtriser canaux yi jotuñ tiire canaux yi. kon daal dañ leen maîtriser ci biir xur bi. bu ci biir xur bi leen tiyee naaj leen fa. d'accord ñu ngi nettali ci parce que histoire orale la. Hmm. version yi nga xamante ni jot nañ ko mu jóge koo Nioro. Hmm. que le le le le lieutenant-colonel Pinet-Laprade gouverneur bi doon jiite troupe bi. dañ ko frayel chemin. xaaj xalal ko yoon mu jaaraat gàppaax génnaat de delluwaat. kon foofu ñoom mënuñ wax ne am nañ dam si kaw rip raison yi sax bari nañ mais benn ngi noonu rek parce que ah, dafa daw ñu ñu ñu ñu xalal ko yoon mu mu mu mu mu daw mu daw mu daw donc ñu rey fa ñu bari si tubaab yi keroog sax dangay dégg ci version parce que lu jot a cité la lu lu am solo la ci euh, tradition orale boo demee dans rip da ngay dégg ñuy wax naan keroog la ñu bari daal di mës a gis un prisonnier tubaab un tubaab bu ñu jàpp prisonnier muy muy muy première fois. muy première fois waa RIP di soog a gis tubaab bu ñu jàpp prisonnier. xoolal moom mooy preuve yi yi nga xam ne canaux yi ñu nangoo si ñoom. Hmm. ba léegi boo demee ñooro ñu ngi ko gardé jalousement mu nekk ay canaux ak cha cha kii yi nga xam ne ñoo ko doon ñoo ko doon chargé. Hmm. yi doon chargé canaux yi parce que canaux dafa fi nga koy xëcc ko dafa diis. bien sûr donc yooyu yëpp ñu ngi ko yore à ñooro gardé ko donc yooyu yëpp c' est des dafa am aussi beneen boo xam ne preuve scientifique la. Hmm. muy benn livre boo xam ne. ginnaaw génn àdduna Pinel Prade mhm. dafa am ay journalistes yu ko bind. livre bi eh, ñu ngi ko teg ci ay lettres correspondance yoo xam ne. Pinel mhm. ah, Prade daf ko doon bindanteeg benn soxnaam boo xam ne ñu ku ñuul la woon nekkoon fii nii Gorée. Mhm. exploité dañuy gis muy reconnaître défaite bi nga xam ne am na ko. fëlee ci xare Pathé donc mel na ni ay at après. le Pinel Prade maanaam ci li mu doon nëbbu. yàlla feeñal ko. ne donc dafa gën a leer ne dafa amoon defet keroog ci kanamu jullit yi. tawarkalla waaw donc. <laughs> muy la am solo professeur tawarkalla euh, macha allah yaakaar naa ni euh, ni ma ko waxee rek euh, loolu ni ma ko waxee jàmm ji info dina ki defaat liggéey yu gën a am solo mu mel nii xëy na ni ñu ko waxee jot yu bariwul mais li nga développé nii rek ndam li ni ñuy wax rek la grande victoire. Euh, de Baba Diakhouba et l' et l' euh, armée ni ñu ko wax te devant le colon. mën nañu wax loolu. Euh, mu nekk loo xamante ne kon donc yaakaar naa ni histoire bi quel que soit alpha leer na fi may daanelee rek. Mhm. xam naa mooy sunu laaj bu mujj ndax dèjà li ñu développé ne am na solo. Mhm. histoire bu tollee nii ci Sénégal ndax moment bi fi ñu tollee nii tey mardi 30 novembre tey ak li sunu maam yi amee ndam nii tey ci kanamu colon bi ci kawam. est-ce que mbir mi ñu ko gën a di yaatal di ko gën a dundal xam ne nag ndam bi du ndam du ndaw parce que l'islam dañu doon xeexal. laaj bu am ama am solo nga laaj sëñ bi euh, def naa wax naa ko ci sama tàmbali euh, kaddu que ndam di du ndamu Tafsir Maba du ndamu ñi sant Ba du ndamu ku sant Cissé du ndamu ku sant Diop et cetera mais ndamu Sénégal yëpp la. Mm-hmm. bakkan bu ci décédé dee woon. bakkanub senegal lay nekk. Mhm. kon bu ko ab sénégalais gagné ci kaw ay tubaab tamit ndamu senegal yëpp lay nekk. Mhm, mhm, te tamit dafa am lu am solo loo xam ne dafa nekk di am jamono ñu toll nii muy ENOA chaque sortie de promotion bu ñuy am. dañuy dem sortie si bërëb boobu nga xam ne xare bi fa la abee woon. di expliquer officier yi. stratégie de guerre bi Tafsir Mama Diakhouba employé woon ci kaw colon yi. waay waay mhm. kon mu mel ni affaire bi lu am solo la état dugal ci loxoom. Mhm. ba pare aussi ñu réviser waat suñu programme. Mhm. d' enseignement yi. intégré ko ci. parce que dafa am ay valeurs yu yéeme yoo xam ne mag ñooñu dañ ko doon wane. d' abord mooy valeur de rassemblement. bi xeex jotee contre ennemi mm. ñoom ñëpp ñëwoon wuy si ma Maba Diakhou Ba nangu nekk ci ginnaawam mu jël njiit gi. waaw kon unité. Mm-hmm. feeñ na foofu. beneen bi mooy dignité mm-hmm. maanaam fit ak dignité ak mm-hmm. ngor. feeñ na fa. tubaab bi bind na ko lettre tere ko li muy def mu bañ ne ko ay sénégalais lañu. fépp fu ñu nekk nekk ay jullit. ñu lañuy toroxal dinañ fa ñëw jàppale leen kenn mënu ma delloo ginnaaw ci loolu. ñëw taxaw ak njàmbaaram ak seen fit ak seen dignité xeex fa xeex bu métti booy lire après description bataille bi da ngay xam ne bataille bi métti woon na. Mm-hmm. li fa des si ay bakkan jullit tamit bari nañ. Mm-hmm. mais ñoom li ñu deele te li ñu deele moom mooy ñoo xam ne ay militaire de formation ay sous-lieutenant ay capitaine ay commandant yoo xam ne dañ leen entraîné formé leen. ñi nga xam ne mosuñoo nekk ci armee lu dul genre guérilla lañ doon def wala eh, eh, ñëw gañe leen duma leen kon man jàkk jàpp naa ne loolu lu mat far di nettali la mhm. génération yi dañ fa yóbbu ay sorti mhm. état tamit war a jàpp si site ba maanaam mu jëmmal ko def fa li nga xam ne war na fa comme ay infrastructure buy mën di accueillir ay visites mhm. def fa sax genre musée def fa sax genre musée parce que fierté la ñun ñi nga xam ne yàlla may nañ ñu tukki. Mhm. ñëwaat mhm. gis nañ tubaab lépp loo xam ne site la. Mhm. historique. buy feeñal seen jàmbaar yi démb. Ah kon ñun ëpp na ñuy seetaan loolu noonu. waaw kon daal vraiment ñu ngi lancé un plaidoyer. aux autorité ñu taxaw ci. dayo bi nga xam ne bërëb bi war na ko am mu am ko. et puis jeexital bi nga xamante ne aussi euh, xew-xew boobu war na ko am ci biir réew mi. tamit ñu fexe ba fésal ko. wane ko ñëpp jël ko euh, approprié ko. tabarkal la waaw macha allah. jërëjëf professeur mu mel ni kàddu gi ngay daanelee rek yaakaar naa waxtu bi moo nu dab rek te vraiment gis nañ disponibilité bi. di leen sant leen gërëm bu baax a baax a baax ci chance bi ngeen ñu may. macha allah di ñaan yàlla yal na yàlla barkeel eh, te dëgëral incha allah yàlla yàlla yokku te yaatal. Mm-hmm. jaay Seydina sallallahu alayhi wa sallam wa aaxiru daawaan alhamdulillahi rabbi euh, di ko santaat bu baax a baax a baax euh, professeur euh, professeur Malick Ba professeur de l'université Cheikh Anta Diop ni ma ko waxee tam ni nga ko waxee rek di sët ki nga xamante rek mënu sunu maam Ba Diakhou Ba franchement tam gis nañ li mu xel li mu wax waaye li mu denc moo gën a moo ëpp kon yaakaar naa ne danañ defar yeneen jotaay yoo xamante ni. Euh, luy intéressé li nga xamante rek mbool yi Sénégal addina euh, bi ñi nga xamante ni bëgg nañu xam ci histoire lu bare bare incha allah dañ ci mën a euh, ànd ak moom kon duñ ko fàtt rek di wax rek tey mardi 30 novembre mille 2021 30 novembre 1865 mu nekk loo xamante ni Nioro Euh, Paoskoto le Sénégal se souvient la bataille de Pathé euh, Badiane mu nekk loo xam ne moom lañ fi doon waxtaanee euh, ñu di ko santaat bu baax a baax professeur ñoo ngi sant ci bi vraiment di la jaajëfal rek bu baax a baax a baax vraiment di la ñaanal rek suñu borom gën a yokkaat xam-xam beeg expérience bi franchement ñoo ngi lay sant bu baax a baax sa disponibilité di nuyu mboolem équipe technique mbokk yi bu jàmm info éclairage caméra Seydina Omar ñu koy santaat bu baax a baax a baax seen présentation Mouhamadou Lamine Mountakha di leen jox dig dajee ci beneen plateau noo ko jàngatee.